Euh, xam nga boo gisee ma dugg foofu mooy euh, dañu gis euh, problème yooyu am na ci Khalifa ak Karim yàggul dara Ousmane Sonko def na ndaje bu mag di débat public yàggul ñu gis ci këram jafe-jafe ci am ci wàllum ay signature ak yooyu. loolu loolu bañ ah, démentir ko mais est-ce que du jox xel ñaar tamit. donc doguma la mais il faut pas mhm. aussi que ñenn ñi di nekk ci position wu victimisation man Euh, am na ay kaaw politiciens yoo xam ne bëgguma ci di wax wax dëgg yàlla ndax damay bëgg respecté doomu Sénégal mais doomu Sénégal boo bëggee ñu respecté la tam da ngay respecté sa bopp euh, dama ni wax naa ko fii waxati ko fii su réseaux sociaux yi man sama page Facebook nee naa hmm. en 2019 on a un candidat crédible pour l' instant su ma gisee beneen dinaa la ko wax mais pour l' instant benn candidat bu crédible la am hmm. ak ay aventurier ku crédible ki président Macky Sall la aventurier Sonko avoué na Sénégalais yi à maintes mais Sénégalais xam ngeen sax dañuy toll foo xam ne dañu lay jaay rek ngay dem nga xam ni Matam bële mënoo fa jël 2000 signature euh, mu mënoo fa jël 2000 signature sa coow lépp mu ngi def ci Ndakaarook wax ci léegi Sonko boobu noonu. Euh, non non euh, na dem 3 millions de signature yàlla ko yàlla mais 3 millions de signature moom xam nañ ko ko mën am tey Sénégal mais li ma bëgg xam mooy parce que bëgguma aussi di di attardé wu ci ci ci moom xaw ma ko moom personnellement euh, xam naa ne doomu Sénégal la waaye dama bëgg tam Sénégal ku ñu teg ci bopp réew mi il faut ñu xam sa jaar-jaar Sonko dëgg la jàng na école administration publique ENA affaire yooyu euh, nekk na inspecteur mais na tàggatu d'abord bu tàggatoo woon bu tàggatu woon dëgg-dëgg ci euh, ci ci administration publique bu tàggatu dëgg dëgg ci yorinu réew am na kàddu yoo xam ne maa koy déggeen saa ma koy wax da ko wax donc man li ma jàpp mooy dafa war a tàggatu dafa war a jàng état état yombul saway doo tëb rek doo tëb rek nekk ko président Senghor laata muy nekk président de la république am na fu mu jaar président Abdoulaye Wade laata mu nekk président de la république am na fu mu jaar Abdou Diouf laata mu nekk président de la république am na fu mu jaar Macky Sall laata mu koy nekk am na fu mu jaar lan la doonoon Macky Sall nekk le directeur général nekk le ministre nekk le premier ministre nekk le président assemblée nationale laata muy nekk président de la république donc man munu mënuma tëb tey nekk journaliste RTS ma gis ne Macron amoon na ko France rek ma jàpp ne mën na nekk Sénégal ma ne xaaral ma sànni xeer ñu dàq ma RTS bu ñu ma dàqee eh, dinaa dem nekk nekk candidat pour mën a fàllu ci dafa yomb trop te sénégalais xam nañu bu baax a baax ni lu yomb ñoom doxuñ ci. entretien di seen émission boo xamante nag Tawfekh Production moo leen ko indil di dalal ay kàngam yoo xamante nag ñoo xam ñu nekk ci làngu politique yi wala ci wàllum koom-koom bi wala éducation soxool na actualité réew mi ak lépp lu jëm ci wàllum rek li suqali réew mi loolee nag mu nekk loo xamante ni day am ci seen Tawfekh Production mu nekk émission boo xam ne képp ku mu yitteel mën nga woote ci numéro téléphone yi li 77 792 50 43 wala boog nga jël numéro téléphone bi li 77 251 04 05 mbokk yi émission baa ngi képp ku mu itteel nag bul ko wuute te mbokki internet yi bu leen ko tardé benn yoon ndax lépp lu jëm ci wàllum décryptage jàngal leen o lépp lu soxal actualité réew mi dañ ko ci waxtaane ci biir émission bi direct entretien ci Tawfekh Production